mbokk journaliste yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu doyen yi nekk fii yëpp ak ouvrier yi nekk cees yëpp vraiment ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu doyen Ida mi nga xamante ni kenn mënul wax ci mécanique Thiès te waxoo doyen Ida waaw di remercier ñëpp nag ñëw di wax ci situation bi nga xam ne moom moo xew Sénégal ak situation bi nga xamante ni moom moo am fii ci cees man la Ali Sow président Revas National. Revas, c'est le regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal. le coordinateur du COPAS COPAS le cadre des organisations professionnelles du Sénégal je suis le coordinateur national Nous sommes ici fii pour voir les artisans yi nekk ci Thiès tok ak suñu kilifa suñu doyen di Ida nous ni nak ndax kenn du wax mécanique ci Thiès ta waxuloko waaw biñu nak vraiment dañuy interpeller état di len wax ni ci ni nek Thiès di wax ak gouverneur ak préfet ak maire ak ministre yi nga xamni ñi ngi nek Thiès yëpp ñu bàyyi ci jeunesse su Thiès bi xel ndaxti amna ñu fi nekkon di wuyo turu Revas nekkatuñu ñoo nyu ni ñoom ñoo jiite fi Revas ci Thiès ndax kérok ba tribunal até ci yoon tek len ay daan dindi lepp ci lañu pare diriger Revas fii ci Thiès Revas Thiès Revas national ñëw na fi ñu def assemblée salut Diop moi le président Moi représente Revas national fii ci Thiès kon dañu bëgg kilifa yi nga xamante ni ci Thiès vraiment ñu dagg ay site de recasement ay terrain jox ko artisan yi nga xamante ni fii ñoo nekk ci Thiès dañuy remercier lenn déclaration président def na 350 milliards ne daf ko bëgg a dimbalee jeunesse bi ndax gis na li doon def mais act bi dafa war a rafet gis nañ bërki démb ministre ministre Ablaye Sow bi nga xamante ni moo nekk Kaffrine bi ma demee ak Kaolack mu yëkkati 10 million jox ko artisan yi foofu la ñuy xaar Thiès dafa am ay autorités Thiès dafa am ay ministres Thiès dafa am ay directeurs généraux nañu jàppale artisan yi chambre de métiers yi mu ngi fi union des chambres de métiers mi ngi fi képp ku bëgg a jeunesse bi jàppale organisation professionnelle bi da ngay dem ci chambre de métier bi nga dans a chambre de métier bi Nak mënoo jàppale ce jeunesse te jaaruloo fofu. di am ci yuma ma wax ci loo xamante ni mooy situation dëkk bi ndaxte président de la république doit génne 25 milliards pour fond Covid bi mais fond Covid bi bu ñu seetloo ci ñi ko yëg Thiès ci artisan yi bëriwul ndaxte ña ko yëg dañ ko doon nëbb ñenn ñi ba inscrire lu ñu di leen wax ni nak mom 5 milliards rek la génneegum mu des 20 milliards ñi ngi interpeller ministre bi nga xamni mo dëkk fi ci fonds Covid bi mu dimbali ñu nga xamanteni artisans yi nekk Thiès yëpp ñu ci recenser ñu recenser leen ñom ñëpp ñu mëna dugg ci fonds Covid bi nak président nak ñu ngi koy xaar 5 milliards la ñu joxagum mu des 20 milliards benen bi ci top moy projet PEJA bi projet bi ñëpp ñu ngi koy dëgg Sénégal projet bi 30 milliards la banque mondiale financé ko état Sénégal dirigé ko projet bi dafa wara jël 7000 chefs d'entreprise wala recruter 32 000 apprentis xam nga projet bi lu mu am importance dañuy accompagner chef d'entreprise. Apprenti apprentis ñu accompagner leen jox leen ay diplôme d'état ba paré insérer leen kon projet boobu projet bu am solo lo. Ta projet bi dafa taxaw bëgguñu milliards yi ñi ngi wax président de la république mu injecté wat projet Mënu ñu gëm tamit leneen ñu kaas ba nga jox ñu un ministre plein mu dëkk fi Thiès président jox ko budget 4 milliards koku mënul liggéey mënul liggéey ndaxte nit ñi dinañ la wax lu nekk ne ministre bu bees ñu ngi ko fal wala def dara mënuñu la fal nga jiite lu toll ni artisan Sénégal yëpp ñu jox la 4 milliards kon président de la république vraiment ñu ngi koy interpellé di ko vraiment na jàppale artisan yi 350 milliards yi nag am commission boo xam ne président mi ngi koy taxawal le 10 commission bi na ci boole artisan yi ndax nit mënoo ko tànnal dégg nañ vraiment politicien yi télé bi la ñuy toog di wax suñu place nan formation formation mais nit bala nga ko former ñan ñoy former nit ñi moy chef d'entreprise ñi ño wara am ay garage ñu moderniser gëna yok xam-xamu xalé yi ñom ñi ñuy former ci école yi sax buñu gënné dañuy ñëw ci garage yi pour am formation président tamit ñukoy interpeller interpellé waat DER bi amul ben organisation organisation professionnelle bo xamni DER financé na la ta DER ay milliards la fa def mais mom moko wax président moo ne au moins de 40 ans 40 ans il na ko dindi pour nit ñi bénéfice aussi ñëpp mën ci gis seen bopp li fi xew ci dëkk bi xam nañ ko nit ñi liggéeyuñu dëkk bi dafa metti ñu ngi interpeller président 350 milliards yooyu ñun bëgg nañ ci gis suñu bopp gis suñu bopp nag mooy financement ay financement la ñu bëgg mu ñëw ci organisation professionnelle yi mu créer ñu banque boo xam banque de artisanal la banque yi dem fa am xaalis dafa jafe mais xaalis boobu bu si jëlee créer si banque de l' artisanal est ce qu'il y a dégg lu ma ñëpp dinañ si mën a jëriñoo képp ku soxla dem fa lépp

Diop la euh, représentant Revas euh, national fii à Thiès euh, maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di wax di mbooloo mi li tax mu toll nii bi ñu ko njëkkee jàpp dafa fekkoon dëkk bi xawoon na am bruit ñu ñu reporté ko moo tax daanaka mënoon nit ñi mënoon nañoo gën a ëpp nii. di wax ni autorité kees ak président Macky Sall ak yëpp koo xam ne kilifa nga ne ci biir réew mi maa ngi lay ni la. ñu jàppale kees jàppale euh, artisan yi jàppale ndaw ñi ñii ñooy ñooy ñooy artisan kees ñoom ñooy ouvrier yi nga xam ne ñoo tomba toll tomba jamono ji fi ñu toll ci automobile fi nga xam ne fi la technologie toll képp koo xam ne mi ngi jóg di yori kayit di dem ak ñëw di leen wax euh, du ñooñu du ñun ñoom la engagé engagé wuñu mm-hmm. li nga xam ne nag maire yaa ngi koy def nga xam ni dem nañu gis ku mel ni ministre euh, Amadou Ndiaye mm-hmm. dem nañu ba gis ko gis lu mel ni maire ali saw ñu waxtaan ak ñoom nañu xam ni suuf si nga xam ne ñoom ñu leen ñëw di leen wax ni diw diw ak diw amoon nañu ca kom ñu jaay seen i yëf te ñoom ñëpp nekk ñu en actif di liggéey kenn ku ci nekk ku ñëw ci yéen laajtee ko fan mooy at atelier du la wax fii leem dañu yori kayit di wëndeelu léegi nag ñun ndaw ñi ñun ci boppam ñun ñoo nekk en masse ànd di doxal suñu bopp di waxal suñu bopp autorités yi kon dama bëgg ngeen dégg ni loolu yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy def fële ca polytechnique muy suuf soosu muy ñoo ñu di ko wax ñun doxaluñ ñu waxaluñ ñu ñun ñi ngi nii gaa yaa ngi nii vraiment ñu ay jën léegi nag ñun ci boppam ñoo euh, yàlla dogal na ñun ñoo toll fii xam ni oto yi ñoo xam jafe-jafe yi ci nekk ñu sunu xale yi bëgg nañu formation bëgg nañu tamit ku leen euh, ñu leen ñu leen di éduquer jàppale leen jàppale leen ci fànn yëpp ci wàllu euh, seen i jumtuwaay ñun ñii soxla nañ ko in soxla ñu ko waaye mag mu fi ñëw wala képp ku fi xam ne ñëw na di waxal ñun rek du ñun kon gaa yaa ngi nii ñi ngi nii kon ñu ngi leen di sant vraiment di gërëm Baye Alé Sow euh, président Revas national ñu koy sant bu baax a baax di nuyu vraiment sunu père euh, Ida Mbaye di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fi toog nañu xam ne daal ñun ñun daal ay jeunes la ñu yoo xam ne ñun ñoo nekk kees di bëgg liggéey fu ñu toog day ëllëgee ñu jëlee ñu fa gars yi ci bëri tas nañ ci biir dëkk bi atelier yaa ci biir dëkk bi fu ñu toog rek ñu jëlee ñu léegi nag ku ñu recaser la ñu bëgg jox ñu ay atelier former sunu booy liggéey vraiment alaikum di gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi journaliste yi mi fi ñëw président Revas ak ñi top topp ñëpp ñun organisation la yor comme voir Revas man maay représentant promo cabine mon mooy Revas mon invité ma ñëw te li ñuy dox benn la li bëgg la man li may wax rek li may président de la république. Moi, je day jël ay milliards jox université suba ñu pourtant xalé yi fi métier ay étudiants lañu am nañ parents d'élèves am nañ ay élèves professeur bi nek di mécanique mais les professeur sénégalais la élève sénégalais pourquoi ñu mëna di dimbali ñëlé ñi kon dafa am parti sénégalais dañu bëgg chômage bi fi nekk pour ñu dindi ko ñii jaaraama parce que ñoom jàmbaar lañu jàmbaar lañu dégg nga ku ci nekk yaa ngi daw dugguñu ci géej gi dugguñu fenn te dama bëgg a wax président kenn musul toj pëne te pëne yi si ñun lay jógee musuñu toj pëne de pëne yi si ñun lay jógee bu ñu nekkoon ñu toj ko mais duñ ko def parce que ñun ay sénégalais xam nañ li ñu bëgg du ñu liggéey ba pare ñu koy yàq ñu ngi ñaan dimbal moom mu xam ne ñaari type sénégalais amul milliards yi ñuy def si université yi ak école technique yi nañ ñu ko defal nañ ñu jox ay garage moderne ay étranger rek ñoo fi yor ay ay garage moderne dégg nga ñun bu ñu ko defaloon kon kenn dootoo gis benn oto ci mbedd mi mais oto yi taxawaalu ci mbedd mi ñàkk fu ñu dem la région Sénégal yëpp am na Promocabile am na Revas bu ñu neexoon ñu koj lépp arrêté ko mais defuñu ko parce que respecté nañ suñu dëkk ñu sommes des Sénégalais purs et durs waaw li ñu bëgg rek li ñu bëgg rek mooy ñu dimbali ñu fii Thiès ba indépendance bi nekkee fii lañ fi mas a joxe ay terrain ñu yóbbu ko xel koom président Idrissa Seck moo ko defoon ñu ngi ko ci remercier de passage ñi fi nekk nekk maire yi nañuy gëstu ne xam ne dëkk bu bu saltee du mécanicien yi dañu amul fu ñu dem nañ leen dimbali booy yi demuñu ci géej gi de ñii ñu am jom lañ toog fii kër yoo fi dugg Thiès buñ fa taalee ceeb bu nous sommes la Nous ñom la alors nous nak dama bëgg ñu xamné chômage bi ñuy wax chômage bi pour mu dañ nañ ñu ay garage moderne financer ñu maam suñ ko lu bari dina dañ waaw ñun si région yépp 14 ñaata région la sax 14 Euh, sunu organisation yi ñu nga fa mais ñun bu du woon ñun dara du dox kenn mosu gis ñu indi oto ci bato bi delloowaat ko ne mënuñu ko liggéey Sénégal loo fi andi ñu liggéey ko waaw dama bëgg président de la république xam ne ñi mu yor njabootam lañ bokk ñun képp koo xam ne dem nga CM2 xam nga cm école léegi moom cm ngay yem rek ñu yóbbu la jox la Idda Mbay wala ñu jox la Baye Aale wala keneen te duñ leen fay mais boo demee Abidjan da liggéey da da ngay fay yeneen dëkk yi dañuy fay mais ñun dañu am social boo xam ne man pour man dama naan ni ma jàng métier noonu lay jàngale keneen te du ma fay man li ma jàngal ci nit ay métier du jeex ah mais nañ ñu utal ay site yoo xam ne dañ ñu koy jox da nga maam dimbaliwaale ñu accompagner ko université lañuy ñuy yàq bés bu jën ñu toj suñuy kaar toj école ba yàq fii alkaati yi daw ah ñun loolu duñ ko def ñun xam nañu alkaati yi ay sénégalais lañu ñoo ñun ñoo bokk du ñu dem di xeex ak ñoom kon nañu xool li nga xam ne moo gën ñu defal ñu ko wasalaam. Zowi leer nekk fii ci garage bi man li ma ci wax sax du bari parce que damay remercier ñi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte tey ñun fekk suñu fi parce que tiitoon nañ ci loolu di remercier président Baye Ale di remercier Père Ida ak ñi nga xam ne Saliou Diop Ndiasse yi ñi war a wax ndax dañoo bari man waru ma woon a wax mais man ñaari mots rek laay laay souligner mooy dañu sonn on est très fii ci garage bi te vraiment ndaw lañ te mosuñu taal kaar comme li paa bi di wax. élèves bi dañuy taal école yeeg di def lu nekk bu bu subaa Macky Sall defaraat leen école joxaat la ay ñun mosuñu daaj pancarte comme je l'ai dit mos naa ànd ak Zal ñu dem ba ci maire Tické mu jox ma vingt carte euh, caisse de sécurité sociale boo ko waxee garage dañu da koy bëgg a jiite ma ko cinquante lañ soxla wala de plus ma ñëw wax ko moon ndaw mi sama ginnaaw yaa ngi dégg li ñu bëgg daal mooy yelwaan mi nga xam ne ku fi accidenté dañuy sonn oto yi comme di woo ministre beeg képp koo xamante ni yaa ngi dégg te dëkk Thiès démb dama seetaan benn affaire bu ndaw rek ci télé bi pour tëjee ñaari mbër ku dëkk Dakar ak ku dëkk Thiès muy Modou Anta mbër bi nekk Dakar ministre yi di ko jox xaalis bari ci kanamu télé bi bu fekkee seetaan ko di dem mais Modou Anta dañ kees kenn jàppale ko looloo war a jeex ñun dañ war a jàppale wutal ñu fu ñu nekk bu ñu feebaree faju ak suñu njaboot maa ngi remercier garage bi yëpp di woo ñëpp képp ku nekk ci garage bi nag nga ñëw jàppale ñu ci lii ñu lite ko am fu ñu nekk parce que paa yi waruñ ñoo gën demit ndax Idriss Seck defaloon nañu ko kon ñeneen ñi fi nekk nañ jàppale seen ñu ñëpp dem